non garaawul Père Ndiouga maa ngi lay ziar. Euh, jëm ci combat bu mag dima war am dimanche dox ci diggante guy gi ak ak rëg-rëg ñun naa ñëpp ku ci nekk sa kanam la nekkee mbër la débuté ba ni ba fi mu egsi fi nii te ñaan mbër yi seen parcours ba mu ko doon résumé lan ngay wax. avant tout ñu dellu sant yàlla juddu ci Seydina moom sangu sang si di sant ñu nekk gën fi ñu jóge ak mboolem ku leen fekk ak ñu fa fekk ah waaw Xaadim di nuyu aussi ministre des ak euh, monsieur euh, ministre monsieur Makhtar Ba euh, di di di ko féliciter di ko ñaanal coupe bii nga ne ci ayam la ko yàlla dogal eh, yàlla na ko jig yàlla si yeneen ku topp am koy ñaanal monsieur Makhtar Ba ku baax la waaw ku ko mérito la ndax sport bi bàyyiwul ci dara virgule ko toggee ba léegi du wax on lu yëngu ci sport rek boo gëstoo gis ko mention spéciale waaw léegi nga ne làmb ji. combat bi war am dimanche jox ci diggante guy gi ak rëg-rëg ku ci nekk parcours ñaari mbër boo boo boo ko doon ñoom ñaar ñëpp ay champion lañu. Mhm. guy gi champion la. def na parcours. bu rafet. ci jom ci fulla ci fayda ak ci fi mu agsi. Mhm. rëg-rëg. aussi la même chose def na parcours ci jom ci fulla ci fayda ñafe ci fi mu agsi kon ñoom ñaar ñëpp ay waaw ñoo ñëpp ay vainqueur dem ñu dem ba làmb boole leen boole leen ñoom ñaar ñu war a bëre dimanche tey combat bi lan nga jàpp na moom moo ci avantage yu Gouye Gui ak avantage yu Reug Reug ñoom ñaar dañu xaw a bokk bëri ci benn côté duñuy xeexkat xeexu kafuyaas lay doon bu ci dee kaaw de am day bett ñu bari mën na am nag parce que ñoom kenn kenn ku ci ne xeexu kafuyaas ngay xeex seen garde garanti wul kon kaaw mën na am mais làmb ji maa ngi ko séntu mu sotti ci bëre li koy sottal ci bëre mooy ñoom ñaar kenn mu see bëre te jàppaloo guy gi jàpp mooy fooram su jàppee day bëre Reug aussi la même jàpp mooy fooram bu jàppee dafay bëre waaw ku ci nekk jàpp mooy sa foor waaw kon nga gis ne combat bi ci ci bëre na la la la war a jeexee bu fekkee kurpañ cafouillage amul mhm. parce que xeex bu normal ñoom ñaar kenn mënu ko ci mais bëre moom dañ koy def. cafouillage nag mën naa am nga jël coup. tuuti. mën naa am nga jël coup. daanu. mais bëre ñoom ñaar kenn ko bëre lañ la xameel. compétition nag Reug moo ko koppale. ci wàllu bëre rek compétition wax dëgg yàlla mbapat. Reug Reug moo ko waaw bu fekkee dëgg rek ay dëgg. mais nag taxul mu war a ñëw rek pour mën a daan guy gi parce que guy gi. Euh, man ko séntu ci mu yaraax lool. mais bu ngeen ne rënkum da nga xam ne kii mbër la da xam ne kii dafa taxaw. am na agis quoi maanaam du doo ko jàpp rek palte palte ko daan ko dem sa yoon. yombul def loolu quoi. ci combat yu ma seetaan yëpp waaw. Euh, nga jàpp na rek moo ëpp compétition. waaw te bu ñu xoolee ñun naa ñëpp ku ci nekk toog na trois ans parce que boo gisee wax loolu li ma ko seetaan moom bapat seetaan mu ko rër seetaan mu ko te ki ma seetaan mu bapat ak ki ma seetaan mu bapat mun ma leen a comparé Reug Reug dafa mbapat comprendre nga bokk équipe nationale ah di dem avènement di bëri ji ci àll bi di ñëw kon donc mu ëpp compétition boo xoolee Reug Reug ak Gouye gi rëg rek moom mu ci yëg ci guy gi moo ko mu jëm ba kon moo moo ëpp compétition. mais ku ci nekk toog na 3 ans bëri woo. guy gi si comment ak système la ko jënd bëri am na 3 ans rëg-rëg ba mu gujjee ci mbapat bi léegi presque tamit def na 3 ans. kon dèjà li ma lay mi ngi ans te bëriwul parce que mi ngi bëri ci àll bi di ñëw. kon mbapat bi moom kon compétir yaram moo gën a miin compétition bu fekkee mbappat rek la ah mais mbër mu ko ci mënta duma noonu duma ko yàq làmbam duma ko pour nga daan ko day xaw a jafe de ci mbappat rek jàppante bëre rek. Mhm. su fekkee mënoo ko duma tëj làmbam pour nga daan ko dafay jafe guy gi nag jàpp mooy fooram ñi mu gis mu jàpp ñépp ñi ci ëpp dalee na daan mu jàpp la nga rëcc jafe na ci man li ma jot a seetaan ci ay làmbam mais nag bu fekkee dëgg rek dëgg tey wax yàlla te yàlla rek tax. Reug Reug moo ëpp compétition yaram moo gën a torox ci bëre te nag ku lu ëpp lu mu compétir ah man pour man man man bu ma joxe faveur moom laa koy jox làmb nag moo tëddee noonu quoi waaw. mais bi xoolee ci bëre dóor bi Gouye Gui moo gën a moo gën a am def carrière ci bëre dóor bi kër que Reug est ce que mun mun tuddee ci avantage. mais non moo gën a def carrière ci dóor bi moo ko ci njëkk ci dóor bi mais nag xam nga guy Gui boo xoolee bëre moo ëpp xeexam. guy gi bëreem moo ëpp xeexam parce que man guy gi ci li ma gi ma seetaan ci moom est-ce que mos na kaaw ca ci côté TNT bi moom Jos la woon. boobu nga gis. waaw kon donc ci ñaata at la def ci làmb ji. ñan la yóbbu Ardo. xeex daal du du du kiyam du forum. non xeexu Casabian sax la ñuy xeex ñoom ñaar ñoom ñaar kenn. bu fekkee bu fekkee dëgg rek ay dëgg. Mhm. ñoom ñaar seen xeex bëndul xeex da nga koy mën. man mhm. su ma xeex damaa mën nañoo xeex mais seen xeex bëndul seen bëree ëpp moo moo ëpp seen xeex man ci li may gis ci ñu koy def ñoom man tey ji fekkoon damay bëri mu leer ma ne mënuma ko ah. <laughs> pour nga daan ko foog nga duma ko. foog nga xeex mu combat bi yomb ci mu il mu xeex. parce que borom kàttan la xale la te bu la jàppee day bëri. mais tant que mu lay jàpp da nga war a teg lu métti loo xam ne du tal jàpp. mais tànk mu ngi féex di bëre pour nga daan ko day jafe. kon guy gi dafa war a dafa war a xeex ci combat bi pour mu yomb ci. bu fekkee mën naa xeex ak moom na xeex ak moom bu fekkoon tey man maa ngi guy gi damaa ko xeexal ak rëy rëy tëj làmbam xeex ak moom mais ñëw ni bëri nii mbappat nii nii nii ah. xeex ci fan la ko digalee ci jàppante bi wala ci samay fils lañ de ku ci daan rek bon Sénégal moo am ndam man. amu ci kenn koo xam ne dama lay yéene safaan favoriser sa moro mm-hmm. mais réalité rek laay wax bu fekkee bëre rek la. Mm-hmm. su fekkee bëre rek la mais rek Reug moo ëpp compétition. Mm-hmm. waaw en vrai dire. waaw. ñun ah bu ñu fekkee dañoo ñëw jàppante rek ba bàyyi xeex bi est-ce bi du yàgg. non jàppante rek mënut am te kurpañ amul parce que ñaari teer lañ yoo xam ne euh, am nga ñu comprendre rek foog ku am. ku kaf yaa sang mën naa am. am kaaw mën na ci làmb ji. làmb am kaaw. mën na am kaaw parce que tax moom mën na am kaaw mooy gis naa fa dóoral ma dóor bu dóoral ma dóor amee kaaw mën na am waaw ne seen biir bëre jàppante daal da gis bëre mais nag bu caaxaan demee dëgg des euh, rëg-rëg yaramam moo gën a torox si bëre mm. en vrai dire waaw. bu lu mu la ci biir jàppante bi ne bu ko fa eggee foo ne warut a may rëg egg foofu parce que bu ko fa mën na am mbetteel ci xam nga mbër moom ma ma ci taamu man mu gaaw. Mhm. loxo bu diis dóor fab dóor jàpp te bu ma jàppee doo jàpp parce que ki nga dàqut a jàpp di fooram comme yow boo jàppee mu jàpp euh, ku cëpp compétition rek mën naa ne mooy am ndam. parce que foofu la affaire bi nekk jàppal ma jàpp mais après jàpp dafa am leneen mooy leen bëre te bu bëre amee rek ah rëg-rëg compétiteur la bërekat la. compétiteur waaw compétiteur la. compétiteur la. ku ci nekk loo looy moytuloo moroomam ci moom. Hmm? ku ci nekk lan ngay moytuloo moroomam ci moom. lan lay moytu. lan ngay moytuloo ku ci nekk ci moroomam. su ma jàppee doo jàpp. su ma jàppee. doo jàpp parce que ginnaaw kenn ku ne jàpp mooy sa fort ku njëkk a jàpp rek da nga war a utiliser sa jàpp mais fekk da ngaa jàpp ma jàpp euh, bëri mën naa durer quoi mais chute mën naa am fu ñu ko foogeewul fu ñu seen forme yi nga gis ni seen open press est que jàpp nga ne am na ko ci kaw a sàcc doole moromam instant bi rëg-rëg mi ngi kattan guy gi. doole kenn du kenn du kenn xalaat na am na loolu amul doole parce que mbër la daf ko bëgg xam nga mbër am na lu ñu ci taamu lamb heure boo nitee bokkatoo ci mais tant yi nga ngi naan dof nga rek yaa ngi ci biir te guy gii dafa bëgg làmb bañ teg ko dof te doful maître làmb ko ñor mu bëgg ko ba ne ci dof kon kooku mun mun ci new doole quoi parce que day xam li ko ciy may lan la Reug Reug moom du lu wax am na doole parce que xale la bëgg na làmb bëgg làmb moo tax mu agsi fii bu bëggul woon làmb du agsi fii parce que gisul papa ju topp ci moom naan ko bëreel gisul na yaay ju topp ci moom naan ko bëreel njàngaan bàyyam noo noo defandoo carrière xam naa ko kon donc bëgg bëgg moo ko poussé ba mu agsi fii kon mbëri la waaw xam nga dañ naan diw maa ko jàngal bëre man toujours damay weddi loolu képp koo dégg mu ne la maa jàngal diw mu mokkal fekk na diw moom mu bëgg la koy jàngal waaw bëgg ba pare su bëgg amul mokkal mënut am kon ñoom ñaar du ñu bëgg kon den ak ñoom ñu dem day doo day yomb waaw ànd ku bëgg a dem ngeen dem day yomb waaw. ok am na solo léegi ba léegi ci combat bi amateur yëpp ñëpp gis na ne xam nañ ne combat bi combat bu mag la te tamit ku ci. combat capital la pour ñoom ñaar ñëpp ku ci daan fan la mën a yóbbu ci làmb. mais ñoom ñaar kenn wattu leen bañ ci làmb et puis làmb ñoom ñoo fi nekk mais rëg-rëg ko bañ ci làmb ku bañ koy bëreel làmb ñen ñoo fi nekk guy ko bañ ci làmb koy bëreel kan ngay bëreel kan làmb fi nekk. kon combat bi ku ci daan nañ la seen. tuuti sori ku ci daan liggéey la rek. diw maa ko mën ay caaxaan la balaa nga naan maa mën diw da ngay toog si dënn ba pare. comprendre nga yi mooy tontu yooyu nañ ko bàyyi maa mën diw ak maa ko déedéet. buñ la fayee lu la jaral man gi mooy lan nga toog si dëndam xam ne yaa ko mën. mais maa ko mën noonu rek du ma bëri ko mën man gëwuma yooyu. ñoom ñaar kenn waru bañ ay mbër lañu. kaamil dañu war a bëri gars yi. waaye loolu laa gis. bu arbitre bi kan moo ci war a diriger combat bi. ñoom ñaar bu arbitre bi sifflee dañuy daje. parce que kenn ku ne li ma la moo ci nekk bëgg-bëgg la ci ñoom la bëgg-bëgg la maanaam ci biir làmbu classé un fou dof mais dof ñu liggéey la ñoom ñaar bu laaj bi suuf lay làmb ji du làmb ji match nii du làmb nekk c'est impossible waaw loolu moom ci combat bi ñoom hmm. seen làmb du tooy du ñàkk fayda hmm. dafay neex parce que kenn ku nekk rek dafa am loo gëm te da koy utiliser hmm. donc kenn xamul ci daw rëg-rëg rek nan jàpp laa ji jeex kon ñoom ñaar seen làmb mënul soof dafay neex gëmm sax mu yeex yaakaaruma ko da nga gaaw waaw yaakaar naa ne war na mën a gaaw jàppe li ma la gis ñoom ñaar warul mën yeex waaw waaw amateur ñu xaar combat bu neex dimanche waaw ñu ngi xaar combat bu neex te combat bu neex lay doon aussi incha allah macha allah père ñu ko ñu bàyyi la tàggoo waaw tàggoo bi mooy na xale yi am discipline. am yar am teggin. te xam ne Sénégal sunum réew na noo ko moom. kon salaamaaleykum mun salaam. yéwadi baaxul. yaradiku baaxul. baadoo la weesul nga nekk sa biiri nawle. ñëpp toog correct. ngay bëmb ak xaaju. ak yaay wi dënn yow mun a fexe ba fex fees bi. da toog ci place sa mën toog ci place rek. tàppante leen raayante kafre làmb ji dem Sénégal jëm kanam man loolu làmb ci lu may tàggoo di gërëmaat nag Parcelles Assainies 1 ba 26 ci nga ma fekk nii di sama xat sama rek di sama doom lay di Abdoul Aziz ak sœur ma leen di ñaan ñu gudd fan gu ànd ak wér di ko ñaanal sama soxna ak samay doom ak mboolee mu jullit te ñaan làmb ji daal nañ ko rafetal ki tëgg làmb ji nu mu sax naka la sax. Mao Cissé Sénégal entertainment. Mao Cissé. fi mu toog loxoom foofu la. fi mu wokk foofoo xasan nag ko fa teg rek. lambu perpétuité moo ko gaare moo ko yàq. lamb dañ ko war a def en direct ñu di ko seetaan gars di ci bàyyi xel di ci waxtaan. parce que tey lii ñuy def privé bi ñu koy def nii tey man man fekkoon dama ko jënd tey tey benn man dama jënd benn benn kii. Oh. waaw léegi man sama ko nit si man lañ koy seetaan see fii sama kër. Mm. kon kooku. man naa ne bu ci bu fekkee promoteur war na cee gagné cent franc cinquante franc la ciy gagné. c'est que ñëpp ko jënd laa d'accord. mais Sénégal dafa tàmm. waaye mais père ju ko jënd ko kan nañ dem këram seetaan werante beeg. waaw jaagar jaagar ji ñun loolu la ñu xam. mais est-ce que du PPV lu baax la boobu ci Sénégal. ci Sénégal foofu laay waxee. bu fekkoon tey jii yeneen dëkk yi la sax daa nga mën a wax mais ñun tàmm. groupe di seetaan benn affaire di ci werante di buuxante di xàqataay di dóorante tàppante loolu la ñu xam. ñu tëju ci néeg di seetaan écran nun rek ko ci def daf xamuñu ko àgguñu foofu nañu wax ne làmb ñu en direct. sponsor nañ ñëw jàppale gars yi ñu liggéey. président jàpp ci làmb ji parce que làmb ji. Euh, am na côté bu mu ko jàppale bu baax moom président. parce que mbër yi amuñu xëy. te làmb ji tey ji bu doxul beneen affaire mën na am. ñaan lu ko yàlla nag parce que ñëpp suñu njaboot lañ. na ci jàpp dugal ci loxoom. maxtaar bay nag maxtaar ba nag mention spéciale. maxtaar ba amul lu mu mën tam ci àddina. waa ju baax la waa ju bëgg liñ ko dénk la. waa ju sonn ci liñ ko dénk la. kon naa ngi ñaan. waxuma la de coupe d' Afrique mais mondial sax yal na ko gagné barke Seydina Mohamed yéen naa ko ko man yéen ngeen jëf nag maa ngi siyaat ñëpp di bëgg ñëpp. macha allah merci Bendiougo jaajëfal bu baax. jaajëf Khadim jaajëf merci.